acca salaamaaleykum mbokk internet yi safoo di seetaan site bi di wasaare ginnaaw ba ñu leen nuyoo tey jii nag ñu ngi fii ci famille wu Pa Abdou Ababacar Mbengue Pa Abdou nag version yi ñu nga xamante ni ñu ngi koy jot wala ñu koy dégg bëri na lool ñi ñu ngi naan dañ ko rey ci li nga xamante ni moo di manifestation yi daal koy tëmbal ci géej gi ñi ñu ngi naan eh, dañ koo rey yeneen yi nag bëri na lool li nga xamante ni loolu la ñu ciy dégg loolu moo tax nag ñun waa wasaare bu ñu déggee mbir am wala mu xew dañuy doxantu ba famille wu ki nga xamante ni moom moo eh, mbir yi foofu la xewee ñu tàllal leen suñu micro laaj leen ci mbir yi naka la demee loolu moo tax ñu ñëw fii ndax li ma koy waxee chaque jour bëgguñu bind wala ñu dugal loo xamante ni amuñ ci ay information yu leer ki ñu àndal nii nag moom ñoom ñaar ñoo àndoon dañu koy nuyu rek daal di dugg ci li nga xamante ni moo di waxtaan bi maa ngi lay nuyu sëñ bi. maa ngi fay. naka la. Baye Mbaye laa Cissé. Baye la yaa àndoon ak Baye Abou Cissé. waaw. est-ce que mën nga ñu ñëwalaatal ci fin yi naka la demee. dañ demoon gi di entraînement ñu entraînement ba si yàgg rek moom ñu ne ñu ngi dem mu ngi dem sangu léegi Mouhamed Gadiaga ne ko bul dem sangu géej bu wóor moom mu forcé forcé léegi si la dem di sangu noonu mu ne maa ngi soob benn soobu génnaat léegi muy dem di sangu noonu ñu gisuñu ko sax benn maire bu maire yi toogoon foofu rek ñoo yuuxu rek ne ki àndoon lam léegi am na ku nekkoon si ginnaaw bi sangu léegi kooku moo ne ba koy ñëw di sauver rek avant avant moo egsi rek fekk dugg na si biir kenn gisatu. loolu ban jour la si ngoon léegi ñu toog di seet di seet di sedd ay presque trente minutes jooy bu jëkk saara géej gi génnee ko si lañ si nit ñi yëpp daw dem génnee ko nag tëddal ko foofu noonu les policiers yi jël ñu yóbbu ñu si oto bi te ñu toog di xaar pour ñu ñu ànd pour suñu waa famille ñëw daal pour ñuy jël waaw. rek la daal di ñàkk bakkanam. waaw. moom ku mag. moom moom mag nag ah? am na ay 18 ans yooyu 18 ans waaw. kon ñu doon dégg que ne moom étudiant la nekkul étudiant ndax yéen ñaara maase. moom mage ay trois ans 4 ans. mag ngir football foofu. Eh, dañ doon entraînement waaw. ci la leen ne xaaral ma dugg sangu Ouzin. waaw après ñu forcé ko forcé ko mu day dem. forcé ko ngir ba mu a dem wala. waaw dañ ko forcé ne ko bul dem géej wóoru. léegi ñu continuer si entraînement rek benn maire yi nekkoon foofu yuuxu nekkee ne àndoon lab la léegi. moom lan doon def da doon jàng wala lan la doon liggéey. waaw ah, daa doon jàng école formation bi la doon jàng waaw électricien la woon foofu la doon jàngee waaw. merci beaucoup ñu ngi lay jaajëf. waaw merci. kilifa gi maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay sant. fi naka la. Waly Mbengue. Waly Mbengue mën nga ñu wax nga ci xele bi. Eh, man maay papam maa ko jur waaw. après ba ñu déggee information yi nga xamante ni moom moo ci jot génn ñu dégg version yi aussi nekk loo xamante ni lu bari la euh, comme ñun dañu tàmm bu mbir amee dañuy dem ci famille ki nga xamante ni mooy di victime bi daal di la tàllal euh, famille wam que mën nga ñu ci mbir yi naka la demee ak xibaar bi rek naka nga ko yëgee. waaw mbir mi moom ni mu demee moom tiis la bu ñëw sunu kaw metti woon na ma lool nag euh, parce que man fekkuma fi sax man damay nekk ci région yi laay liggéey. moom ma fekkoon Kaffrine au niveau de Kaffrine si benn village bi ñuy wax euh, Dimiska dama julli timis ba pare toog wér de pare rek jóg bi may lem jullikaa bi daal lu ma suma mag woo Modou Mbengue mooy sunu chef de famille moo moo tàggee ma ko bu ma ko waxee nag amoon naa choc trop ci affaire mu metti ma noonu laa quitté euh, Kaffrine ñëw directement dakaar bi ma yegg si Dakar boobu guddi na ay deux heures du matin presque trois heures mooy laa yegg si Dakar daal bi ma xëyee nag ma doog a ñëw si gën grande famille bi ñu doog a def set li ñuy def daal waaw. Ah, xale bi moo nekkoon sa taw wala. non moo nekkoon sama ñeenteelu doom. Hmm. mën nga ñu wax ay atam ci ñaata la toll. amoon na dix huit ans waaw. doon da doon jàng. centre formation fii de la Fosse. mu ngi woon si troisième année am même d'après li ma suñu waa kër wax sax sama yaay moo ko yor moo ko yar fii la nekkoon ci moom bi may toxu fii laa ko bàyyi sama yaay mais jàngi na lundi bi sax ba def examen waroon am examen fin d'année am lundi di mercredi def na examen bu di ba pare doog fi jóge accident bi am ñu leen doon entraîné d'après lu ñu expliqué si l'accident bi am. si bëri ñi daan dañ ko rey si manifestation yi daal di koy tëbbal si géej bi loolu du kee loo xam ne lu wër la. déedéet loolu amul waaw parce que li am mooy lii ñu la wax kii sama doomu sœur bii la waaw ki doon wax moroomam la ñooy ànd guddi ak bëccëg ñoom ñoo àndoon moom moo fekkee lépp lu nit mënti wax kii ak ay moroom ñoo fekkee histoire bi ñoom ñoo woote ñoo wax ñu waaw moom fii la doon jàng Delafosse yan kàddu yu seede rek nga ñu mën a jox ci sa doom jooju. suma doom bi li ma la mën a seedal ci moom. mooy que ne jullit la. ku jullite la. waxtu du ko raw. yaru na. noppi na. te disponible na tamit. amul fii kenn koo xam ne mën na wax ne mën nañ ko atte xeex wala amul. yaru na lool lool lool ba man dama ko rusoon sax. jàkkaarloo ak nit wax ak moom nii jàkkarloo bët ak bët amul waaw loolu moom maa ko jur mën naa seedeelu moom ci moom jullitan jàpp na njàmburam te jàng rek la xamoon boo demee nekk ci école ba say professeur yëpp ñëw fii professeur am yëpp ñëw fii reconnaître moom bravoure am rek xamal na xale boobu am na am na lu nekkoon ci moom waaw parce que ay professeur am yëpp ñëw nañ fa waa di la force soo neexoon nga dem foofu interviewer leen comme nii benn kàddu bi lañ lay wax élève bu disponible bu sérieux bokk loon ci benn affaire yi ñuy wax yëpp nag dara amul ci loolu moom vraiment amul moom waaw. d'après bi ñu la woowee ne sa doom jooju daal di nay la bi nga demee hôpital jot nga ko gis wala jotu leen gisante. Euh, samay mag laa fa fekk xam nga ñun mooy li ma la expliqué woon léegi ñun dañu am statut famille sunu mag. samay mag ñoo fi nekk bi ma jógee foofu ñëw fii sama kër yaay dem fekk foofu boobu mënu woon téye sama bopp ndax métit bi ak choc bi ñoom ñoo ma renvoyé ma ñibbisi gis naa ko bañ dugal si ambulance ba yëpp ko seetoo ak autopsie gi yëpp mais moment boobu man j'étais abati fii laa ñibbisi ñoom ñoo def lépp lépp lépp ba dernier recours yi daal armée yi daal lañu daje ak moom jàkk ñu yóbbu ko denc ko waaw yan qualité wala yan jikko rek moo la gënoon neex ci sa doom jooju. li ma gënoon neex ci moom. jullite gi waxtu du ko raw te ku ma déggaloon la tamit déggal maamam mi nga xam ne moo nekkoon ak moom maamam mu ngi fi ci kër gi moo doon tànkam moo doon loxoom mosul am fii kenn koo xam ne xuloo na ak moom wala xeex na ak moom amul. bàjjenam bii mën na si def ay seede yu leer moom ñoom ñoo nekkoon ci kër gi waa bàjjenam mu ngi nii. mën ngeen ko interview laaj ko moom dina la wax. maa ñëw ci bàjjan bi message bi ngay lancé jëmale ko ci askan bi ndax tamit yenn saay fausse information yi di génnee côté bu nekk te yéen famille yi nga xamante ni ñooy victime yi aussi du leen neex day bu amoon message booy lancé jëmale ko ci ñoom ban message lay doon. waaw message bi may lancé daal mooy que ne képp kuy waxati si benn situation bala ngay joxe benn information da nga am lu leer parce que man liir bi. mais li ma lii si L'Obs bi dàpp nañ ko relaté loolu amul nañuy éviter yooyu parce que yooyu day indi ay divergence daal si nit ñi day jaxase xelu nit parce que dafa nekk année boo xam ne si période élection bu ñu waxee loolu day mel ni dafa doon manifester wala doon def lii lu ne daal mën na si juddu daal nañu éviter yooyu yooyu daal nañ ko éviter dëkk bi dëkku jàmm ak salaam rek la kii nag nekkuloon manifesté wul xuloowul xeexul dafa entraîné fii si Mbàkke mooy seen monit moo nekk foofu comme moniteur fa entraîné ba pare loolu am accident bi am d'après li suma doomu rakk bi wax noonu la affaire bi demee. jërëjëf papa ñu ngi la koy bu baax a baax. maa leen di delloo njaal bi di rafetal seen ñëw ak leeral bi daal jërë ngeen jëf.